asalaamaaleykum mbokki safo 7TV bisimilah ci xibaaru marax yi nes ki su jukki leen li gën a fës niki tey aljuma ñaar fan ak ñett ci weeru u gile la ñuy màggal Touba jàppale na nag at wu yàlla sàkk dañu koy daal di amal Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mi sos yoonu Murit moo ko daal di woote jaatu 1895 bak nigi di nag daanaka noonu noonu réerul ndax ñu koy amal at wu yàlla sàkk atum ren lu toll ci juróomi million ci doomu réew mi moo takk wutali Touba Mbàkke dañu at itam jëmale ci toral bu senegal jafe-jafe la ñuy jànkonteel lu ñeenal coppite jaww gi ak itam li nga xam ne luñ duppee érosion côtière ndox mi daal day wàll yan ba nangu sax yenn ci ay kër euh, ca mbaaw jafe-jafe googee la ñu daal di nekkee daanaka kër yu bare bari ndox mi yóbbu na leen dinañ ci teewlu reportage yu nga xam ne def nañ ko ca ak itam kàddu yi bawoo ci askan wi mbokk yi ñaari ponk yi gën a fas ba leen taxee ñu faram fàcce ko jëf leen bu baax a ci toll bi ànd beeg 7TV dañu koy tàmbalee màggalu Touba atuma ren jile amal leen ko ni kitee ci àjjuma ji ñaar fan ak ñett ci weeru août jàppale na nag Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul mi sos yoonu Murit moo ko ootee at googee la ñu ko daal di ak ndéggan yi ndono li nag ba tey ñi nga xam ne ñoo bokk ci njabootu Cheikh Ahmad Bamba di nga koy wóyal atum ren lu toll ci juróomi million ci doomu réew mi ñoo takku wutali nag Touba ko defee rek at bu ne gi ak nag naka lañuy def ba yëpp yem mu teg programme bu mucc ayib goo xam ne daañ ca jëmmaal ni këreen ci tembo téeméer ak fanweer yoon bu yoon xumbu tey daanaka dañ ko dëxañ ci waxtaan ak itam yenn ci rek li nga xam ne mu nekk jàngaluk sëriñ bi egg ko nag askan wi mu mel ni daal loolee nag la ñu dëxañ sax ni këreen ji loolu la ñu waxtaanee bu ko defee rek ñu gindi nag ñëpp ci yoonu murit ak itam njàngale bi nga xam ne rek Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul bàyyi na ko fa njàngatuk bés bu Modou Sall Bari itam dafa taxaw ci xew màggal gi nga xam ne amal nañ ko niki tey ci di xew-xew wu am solo ci rek diine l'islam waaye itam euh, ci Cheikh Ahmad Bamba bi nga xam ne moo ko daal di woote ci kanamam nag bëri woon na tolof tolof yoo xam ne daanaka jànkonteel na ko waaye loolu yëpp nag dimbalu borom bi daan na koy saafara ba tax sax nag jàpp leen ne lu bëri nag ci askan wi di jullit moo xam tarixa gu mën a bokk ñëpp rek takku ba ci quartier ngi nag wutali nag Touba ngir rek màggal woote wi xam ne Cheikh Ahmad Bamba na ko tubaab yi ni ñu ko doon jéem a noote sonal ak anam yi nga xamante ne dañu ko tegoon loxo te dëppoowul sax ak loo xam ne war nañ ko mën teg nit loolu yëpp terewul Cheikh Ahmadou Bamba dafa mujjee jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoo doon ay noonam ba mujj leen daan ginnaaw bi mu dellu see nag ci dëkkam dafa fexe ba taxawal te dëgëral reen yi nga xamante ne moo ko may tey mu am li mu am muy koo xamante ne dafa wane yoon bi sax si dëgg ngir jaamu boromam boroomam Cheikh Ahmadou Bamba nag taxawal yoon boo xamante ne nit ñi dañ see mën a roy ba yegg si seen borom mu nekk nag modèle boo xam ne dafa dogu ngir liggéeyal boromam liggéeyal nit ki ak liggéeyal islaamu suufi ak justice sociale maanaam askan bi ku nekk ñu jox la li nga xamante ne mooy sa cër Cheikh Ahmadou Bamba nag bàyyee communauté bi ak nit ñëpp patrimoine bu riche boo xam ne dafa tënku ci wàllum xam-xam ci wàllum intellectuel ak ci wàllum diine ki nga xam ne nag moom moo nekk xalif général des mourides di sëñ Mountakha Mbacké moom mi ngi wëyal yoon bi nga xamante ne maamam daf ko rëdd te itamit topp tànk ñi nga xam ne ñoom la fi wuutu xalif général de mourides am na ay qualité humaine royukaay la am tam ay qualité intellectuelle maanaam si wàllum xel ba si sax wàllum doxalinu diine wane na nag vision maanaam yoon bi nga xam ne si lañu war a jaar ngir gën a yëwanal li fi sëñ Touba bàyyi ci dëkk bu tedd boobu di Touba ñu ñaanal xalif bi mu yàgg fi te wër di jiite màggal gi di ko tam képp koo xam ne taalibe Cheikh Ahmadou Bamba nga feebar bii di variole du singe moo ngay wéy di gën a law si biir Afrique si benn at daat nañ enregistré lu ëpp dix-huit millions wu cas bilee feebar loolu waral bilee vétérinaire bi nga xamante ne xam-xamam dafa màcc si wàllum sécurité sanitaire des aliments daal di rek ñëwaat si li nga xamante ne virus bi mën na fa jaaxee. Ah, feebar bi bu koy transmettre de l'animal à l'homme le plus souvent. contact la maanaam tey ngay euh, rëbb rëbb benn mala boo xamante ne euh, moom peut bi ñu koy rëbb gaañu nga ci gaañu boobu nag dina tax virus bi mën a jaare foofu daal di euh, dugg ci sa yaram euh, ba indi yenn ba indi feebar bi wala nga jàpp mala bi rendi ko lekk ko te ba nga koy togg peut-être ñorul. docteur Alioune Badara Diouf daal di itam ñëwaat si mandarga yu njëkk li nga xamante ne mën nañ si ràññee. bi le feebar. donc virus bi nag bu xasee bu dugg ci yow nag li muy def nag c'est très moom dafay euh, d'abord dès les premières heures dafay indi tàngooru yaram sa yaram day tàng jër euh, boo dawalee tuuti nga gis ne euh, diggante zéro à cinq jours yi waaye bu weesoo cinq jours yi da gis ne mu commencé génneel la nag ay boutons sa yaram maanaam commencé di la defal ay ay ay boutons yoo xamante ne dafay nekk fépp sa yaram mu commencé ko sa bopp. ba ci sa tànk yi fépp foo xamante ne yaram mu ngi fa rek bouton mun na fa génn. ngir rek xeex bi le feebar Sénégal daal di rek gën a def dooleem si wàllum fagaro bi loolu waral si jamono ji nga xam ne dañoo nekk si magal bu Touba ñu daal di rek gën a renforcer sécurité bi lu ëpp juróom benn junni professionnel de santé nga xamante ne seen spécialité dañoo wute ñoom ñëpp lañ daal di mobiliser si bile événement bi nga xamante ne dafay dajale ay junni junni nit nag lu toll si 186 sites daal nañ leen taxawal. taxawal si fi nga xamante ne pèlerins yi mën nañ fa daje Institut Pasteur nag moom mooy joxe résultat test yi te nag nañ taxawal itam ay zone de quarantaine Dieynaba Oumar Sow mu nekkoon matuwaay yi nga xam ne kilifa yi ci wàllum pàcc mi jël nañ ko ngir aar nag taalibe yi nekk ci diwaanu Touba waaye itam saytu leen bu baax lu ko waral bokk na ci nag dañuy rek moytu musiba bi nga xam ne tàmbali na daal laal leen ci ay du singe lu mooy loolu ba tey dañuy des ci xibaaru ci diine waaye bi yoon nag suñu mbokk quartier ngi jàpp leen ne takku nañ fasine amal daal seen ak ak yi nga xam ne ni nekki tey ji ci aljuma ji ñu bëri ci ñoom nag daal nañuy bawoo Ndakaaru wutali bërëb bu sell ba sukkandikoo ci kuréel gi nga xam ne mooy saytu wàllum aj wi daal nee na toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay chrétien daal dañuy dem nag ca fi nga xam ne rek mooy ca Rome foofe nag bu ñu fa jógee ba def ca lañuy def ba noppi dañuy rek dem ci yeneen nik bërëb yi nga xam ne tam moo soxal aj bi mu dukkante wàccaayu pèlerin catholique yu war a dem ci lieu saint yu chrétienté yi mu ngi mel ni lépp mat na ci mi nag ñetti téeméer ak juróomi fukk fidèle ñoo war a def déplacement bi. dinañu ko dooree ca Rome Rome mi am wàll gu rëy ci jàngu katolik bi ñu bokk ñun ñépp suñu jógee Rome dinañu dem Jérusalem Nazareth ca Israël Bethléem ca Palestine ca Lourdes ca Saint-Jacques de Compostelle en Espagne ca Fatima au Portugal. mu di pèlerinage bi nga xam ne ni daañu ko amal ñaari fukki fan ak benn te mu war a door ci aljuma gi. at mi ci suñu pèlerinage pèlerin bu nag joxe na trois cinq cent mille francs. bàkku ren bi nag ñu wekk ko ci jàmm ci biir réew mi ak bitim réew. li ko waral mooy dañu bëgg di gëstuwaat ak ñaan ak xalaat ci coono yi amoon fii ci suñu réew Sénégal ci weeru mars bi ñu génn. fàttaliku li dal diggante Israël ak Palestine. di xalaat itam yeneen réew yi nekk ci àdduna si. balaa ñoo dem comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques amal ñaareelu lëlëm mu doon ab porox ndoll ngir ñu weccoo xalaat ci lëpp lu jëm ci pèlerinage bi diggante pèlerin yi ak ña nga xam ne nii ñoom ñoo leen di yombalal seen tukki gi. jërëjëf Mamadou Kanté dañuy àddu jëmale ci wenn xibaar bokk na ci faat bakkan yi nga xam ne meeku nañ ko eh, ca Pikine Technopole ñeel nag ki nga xam ne moo di Abdou Aziz Ba ñu gën koy oowee Aziz Dabala ak Boubacar Ganou ñu koy oowee Wally bu ñu sukkandiku ci yéenekaay bi di Les Échos yaatekat yi nag ñoom daanaka daanañuy am nag eh, lu ñu gis ca barab bañ leen fàtte bokk na ci nag ay gànnaay yoo xam ne daal loolu la ñu fa daal di fekk waaye daal anam gu ñu fekkee nag boobee appartement doy na waar xibaar la ñu joxe donte nag enquêteurs yi ñoom fi mu ne ñu ngi def liggéey wu am solo ngir rek xool kan moo jël bakkanu ñaari gonu yooyu lee dañuy àddu jëmale ci wen ponk boo xam ne itam waxoon nañ leen ko laataa ñu sóobu ci gi de ñeel littoral bu Sénégal jafe-jafe la ñu am ci neel coppiteg jaww ji nekk na loo xam ne itam eh, daan nañ koy nemmeeku ci diwaanu Mbaaw ndox géej gi wàllu ba jël yéen ci ay kër yu féete woon ak ca peggu ba eh, tax ña fay yeewoo mer ba futtu ndax ci jafe-jafe ci tàngaay ñu nekk noonu nañ nañ daal bu leen dimbaliwut ngal la jàpp leen nag bu ko def defut musiba mën na xew ci seen kaw. bis bu ne daanaka tiitaange lañuy dëkke dëkkee saa suñu xëyee ba jàkkaarloo géej gi bile sëgg nekk fii ay at a ngi nii doon bi njëkk fii ci village u Mbaaw tey daanaka xaaju cimetière bi lépp géej gi daldi na koy nangu. ma wax ne cimetière yi quatre parties la trois parties yëpp ngi si géej. fii ñu taxawoon foofu benn parti la si si cimetière yi. pratiquement ñun ñu fi toog yëpp suñuy yaay suñuy papa yëpp fi lañ leen denc donc kon moom lu fi des si cimetière yoo xamante ne yii cimetière yi cosaan la. bàmmeel bii sa bàmmeelu maam la ki jur sa papa bon donc lii war na ko seetaan. bi le mur ñu defoon ko fi ci jamonoy Mamadou Seck moom mi nekkoon meeru Mbaaw li ko taxoon a jóg mooy rek daal di baare géej gi ngir ndox mi bañ a dem ci kër yi wante tey. xaaju miir bi lépp daal di daanu géej gi daal di koy jël li ni daal di bari loolu ay conséquence parce que mur bi war am na fi dix ans ou quinze ans mais bu commencé bay daanu te bu buñ sàgganee ba mu daanu ba jeex rek mooy cimetière yëpp dem na. jamono yi passé ni yëpp mu ngi koy dóor géej baa ngi koy dóor avance de la mer mu ngi koy dóor bon mu ngi def ay ay ay fissures. bis bu ne ay kër di daanu jamono ji njaboot yu bari. ñoo daal di nekkee ci njàkkare nelaw ba yendoor daal di leen jafe. ñetti yoon a ngi muy nangu suñuy néeg ba mu des benn néeg bi ak lii metti na lool nag. pieds yi ngay seen si biir ndox mi ni jàkka woon dañoo jàkki ndóoyeen ak jàkki cekkeen mais loolu lépp maanaam avancement géej gi moo tax jàkka yooyu ñu ko même si jàkka yi ginnaaw jàkka yi jàngi mbaa foog lañ ko daan organiser. bokk na ci lu leen jaaxal mooy tekk tekkaaral bu autorité yi daal di àndal ci mbir mi lay géej avancement géej état moo ko mën a moo ko mën a solutionné état moo am doole ji. ñu ngi ñaan ñépp ndimbal képp ko ci war a teg loxaam rek ñu ngi lay ñaan ndimbal. phénomène changement climatique bi daal di bari loolu ay conséquences li ni mel nag di jur loraange yu jéggi dayoo ci ñi dëkkee ci littoral bi rawatina population bi la. jàpp leen ne centrale électrique bu West African Energy daañu ko daloo weer wi du ñëw di weeru sattumbar lu leen nag ah, bawoo ci kilifa gi ñu dénk wàllum Senelec nañu daal yi fi nag bu anto ba noppi lu toll ci njëgub courant gi dina rekk wàññeeku bu baax a baax ci téeméer boo jël ñeen fukk yow muy xabaar gu neex gu xam ne daanaka fësal na ko loolee ginnaaw moom demee ca barab ba saytu yëf yi nu mu tëddee. Senelec ak tàngaay bi di ñëw Senelec dafa soxla soo gisee tey ñu yàkkamte ñu. Euh, Euh, directeur général bi ak secrétaire général bi dañu teg pression parce que tey euh, tàngaay bi yegg na fi nga xam ne ñoom dañoo soxla benn machine bi dem dem dem gaaw pour éviter délestage euh, projet bi objectif bi mooy ñun ñu wàññi njëgu Senelec de 40 pour cent 40 pour cent nag Senelec xam naa ne ak autorités yu bees yi dinañ ko répercuter ci population bi idée bi loolu la ak gaz bi su yegsee su gaz bi yegsee Euh, incha allah te euh, année prochaine dina yegg si parce que Sénélec sax ut na pexe boppam balaa muy xaar yaakaar Teranga pour que su yeggsee ñu mën a euh, utiliser machines yu nga xam ne moo gën a performante te dina wàññi coût de production pour Sénélec de 40 pour cent te loolu mooy objectif bi. xibaar bi ci réew itam lañ yóbbu ci joŋante yu ki nga xam ne rek moo ñeel bokk moom li ca Centrafrique buñ ca noppee itam daañu jëm ci duwaanu France ak ca Népal foofee nag fukk doomu ak ñeent ñu daal di ñàkk seen bakkan ginnaaw ab bis boo xam ne moo yóbboon ay doomu aadama daanaka dafa rek daanaka fu nga xam ne foofu la noonu aw ca diwaanu Inde la noonu jëm waa daal course boo nga xam ne ca la yóbboon dafa rek mujj tab bi ci ab ndox lu lay jur jëye mat taw yu bëri yi di wàcc weeru juin ba léegi fi si dendu Afrique di feesal géej gi ak dexi def na ay njombe si réewu Niger fa yëf ya nag gën a yéeme mooy sa capitale ba di ñàmmee foofe moom yoon yu bëri dagg na ndax ndox bu bëri ñasa loru seen lim toll si fukki ju nekk benn yu toftal juróomi téeméer bu ñu sukkandiku si kilifa yi jiite réewu Niger bu ñu xaymaa nag si ñetti weer yi le ñu génn àdduna si taw yooyu si réewu Niger seen lim toll na si ñaari téeméer yu toftal fukk ak ñaari téeméer jëli si ay gaañu gaañu ñu yëf ya nag sonal di sinistré yi seen lim romb na ñetti téeméeri junni ak juróom fukk ba tey mu ñu sukkandikoo ci kilifa yu réew Niger. ca Centrafrique gouvernement ba jël na dogal toxal rek datu élection locale ak municipale yi nga xam ne ñoo ngi ko waroon a amal si weeru octobre bi ñu dëppmal dàq nañu yëfi yóbbu ko si juróom benni fan si weeru avril atum 2025 lii di dogal boo xam ne gouvernement bi moo ko jël gannaaw bu mu sekkeek waxtaan ak kuréel gi nga xam ne moom la ñu dénk mbirum élection yi foofee sa Centrafrique di autorité nationale des élections ak it seeni partenaire financiers Mathias Barthélémy Marouba mi jiite agence nationale des élections foofee sa Centrafrique ba mu yëkkati ay kàddu li mu xamle moo di ni ay jafe-jafe la ñu am si wàllu koppar ak si wàllu technique loole waral ñu jël bi bile dogal nee na nag koppar ga ñu war a dugal sa yooyu la élection xayma nañ ko si juróom-ñeenti milliards si suñuy koppar nee na jamono gi jot nañoo dajale lu tolloog juróomi milliards jàppale ni am na léegi ñeent fukki at ba élection locale gëjee am foofe sa Centrafrique feebar bi di catarrhale ovine mu ngi bëgg am doole sa réew France yëf yaa ngay law buñ sukkandikoo si jëwriñ gi gàll wàllu mbay mi nee na laalagum na lu tolloo ko téeméeri gox ak juróom-ñeent fukk feebar bi nag mala yi mi gën a laal mooy rek xar yi rawatina mbote yi lañu seetlu moo di ni loraange yi muy jural yile mala bokk na si di leen faat ak it di tax ba duñu mën a am doom yi fi tàmbalee jural ay jafe-jafe ñi nga xam ne ñooy yëngu si wàllum càmm gi foofee sa réew France agence nationale bu yor wàllu sécurité sanitaire moom ma ko xamle cas bu njëkk bi nag juróom-ñaari fan si la feeñ foofee sa réew France sa wetu frontière bi dox seen diggante ak Belgique. sa Népal lu tolloog fukki doomu aadama ak ñeent ñoo ñàkk seen bakkan gannaaw ba seen bus daanoo si ab dex ña nekkoon sa boobule bus ñoom ñëpp réewu Inde lañ jóge woon kilifa yu Népal ñoo xam lu ni mel nee nañ seen lim tollu woon na si ñeent fukk yu nekkoon sa boobule bus Katmandu lañ doon dem capitale bu Népal jamono gi ñu ngay wéyal ceet ga sa la dex di xool rek ndax am na ñu mucc sa boobule l'accident ak di génne it néew yi mu di jëye joo xam ne mu ngi amee sa dex marsiang di li waral nag boobule accident kenn xamagu ko ñasaloru it kenn fësalagul seeni tur jërëjëf jëmu mbay mbokki jaare fi bourgi taayu xibaar yi jaajëfal leen bu baax ci teewlu bi ànd bekk 7TV ci kanam tuuti bu joxum ñaar wax jotee ba toftal fanweeri simili di ngeen teewlu journal bu ñu jagleel màgget gi ci diwaan Touba ngeen di ci ànd suñu équipe yi ñu fa teewal ca ngeen jëf